aku ko itu yi tuuti ngeen baal ma parce que itam nag jamono ko laaj dañoo nekk ci axbaari sarayir gi waaw di feeñal ndànk ndànk yu nëbb man maa togg màggalu daru mu ati des ñetti fan ma wax ñi ne leen ku fi ñëw ci ñoom mooy remplacer Ablaye Wade ci sama yëg-yëg ba mu ñëwee ak ñi mu àndal jarul may tudd seeni tur ndax fekkee mat juróom-benn ak moom muy juróom-ñaar ko tuddul turam te mu ca day nuru dara waaye yóbbu waaye ca kaw laa ko recevoir recevoiruma ko ci suuf ci ku bëgg a dem ca kaw ku bëgg a dem ca kaw nga recevoir ko ca kaw te fa ma ko recevoir it pour ab sëriñ recevoir ko fu mel noonu ku ñuy tuddee sëriñ day xaw a jafe pourquoi ndax dama jël ñaari néegi naa Ousmane boole ko mu nekk jàkka ngay jël escalier maam Thierno Birahim sama rakk ngeen gën koo xam ci borom daaru defarlu escalier bi boo génn ci jàkk ji jël escalier bi mu jëm ci appartement bi ci kaw apartement bi boo fa nekkee bu fekkee waxtu jot na te wàccoo julli ji ñii julli yaa ngi leen tiim loolu day raar foofu laa ko recevoir néeg ba dafa yaatu ma ne ko waxoon naa xale yi ku fi ñëw may remplacer Ablaye Wade loolu signe la rek benn la ci li ma leen ciy wax waaye fu bari lañuy jaar ba tax na dinaa leeral ni mus na fee wax waxi lion gaynde moom Macky ma dégg am ca ñu koy wax yeneen te yooyu waxin la rek comme ku tëdd ki ni muy wooyee saaba yi ay gaynde al usud nit ki buñ naan gaynde la du xam ku ne xam na ni nit du gaynde waaye dafa fekk rek waxin la ku ne xam ne nit du gaynde waaye gaynde bu demee ci lag bu demee ci déeg di naan munta tee li muy doon doon doon gaynde faw mbott yi naan ngoox yi ngoox waa mbott yi it mënuñu tee gaynde naan yéen journaliste nag comme moom da di settantal bu ngeen demee ah yéen comme da di settantal dama ne gaynde munta tee mbott yi dafa bëgg naan rek mbott yi terewuñ ko naan gaynde moom mbott dérange ko waaw te it xeeb na ko xeeb goo xam ni du ko joggi du ko kii ah xanaa mu joggi ko te tayu ko te bu ko joggee yëg ni joggi na ko faw mu ne allah ku ne xam na ni gaynde allah lay lay nare xaw ma yéen a ngi koy settantalam déet waaye gaynde buy ŋar allah lay wax mala boo gisee rek am na turu yàlla bu muy sabe moo tax gaynde gën maa saf ci rabi àll yi ndax allah am jooju fofu la ci yam ci mag ak bëgg mu wax wa aduna bi ni solution problème yi fi la politik, ci Serigne Touba. benen mu mu des politique bi classe politique bi ñi nga ni ñoo bëgg tok fi mu ay élection yi tégaloo it coow lu bari ak ñàkk a déggoo rek lay jur ñun suñu proposition mooy na fexe nu mu déggoo ak ñoom ñi bëgg nguur yere bidiw bi taxul nak nga don ko waaw mu ngi melni rek euh, enseignant bu amul fu mu jangale bu xey di chomé wala loolu motax ma bëgg mu wo ñi nga xamanteni bi ta tan nak tan na wana wax discours bi damay bëgg mu téggé ci <laughs> dëkk forme baax na lool waaye bariwaa na lu ko nuru te doonu ko forme mën na rafet ni bariwaa na lu ko nuru te doonu ko te mu setantal xool ñi nga xam ne leer na ko ni ñii seen xam-xam mën naa doxal réew du caa gën a parti yi bari na rek nangam, nga ma mais parti yi nañ leen tas lu muy jariñ ha parti yi nañ leen tas nañ ko def ñaari parti wala ñett bii di bii di gouverner bii <laughs> bii di contrôler Si xolé aux États-Unis kay wax deug fa mel euh, état New York rek nga millions d'habitants. <laughs> té Sénégal matul 20 millions 9 millions d'habitants. millions États-Unis <laughs> xana kay fuy am parti yu bari la wara a hmm wala millions d'habitants. wala yu vous non nañu parti ci yi baaxul tass nañu un parti té ci comme ay comme ay coalition rek la mujj <laughs> ko loolu kat mooy dëgg gi dëgg nag wala fii ñaa wax ne kaani la bu demee ci ay bët waaye man sama dëgg lem la du kaani wax dëgg yàlla boo ko bëggee def kaani yaa ko def waaye du kaani loolu moo tax Macky bu defoon loolu dëgg la euh, li ñuy tuddee calendrier républicain ak yu demee noonu waaye bu ñu mën a fexe bàyyi élection du am daal moo gën waaw sama baat ca kaw ñu mënoon fexe bàyyi élection yi présidentielle yi ñuy wax di dem xam nga boo waxee itam mën nañ ni kii day wax rek waaye comme wax dëgg yàlla wax ji moo nekk li may wax dëgg la ci man dama koy wax nañu fexee déggoo ñoom ñi nga xam ne dañoo bëgg a bokk ci nguur fekkee am nañ utilité boo xamante bi dina mën a tax Sénégal jëm fenn ma ci waxtaan ak ñoom te kenn dañ fay nekk naan nekkoon naa lii du ma ko nekkaat wala lu demee noonu yooyu yëpp ay jaaxaan la amul ci lenn lu tegee ci dëgg ci intérêt rek la tegee ak bëgg pouvoir <laughs> yooyu lañuy jël teg ko fële am na yoo xam ne bu continuer man maa ngi ñi ma ko àndal ñu ne dinañ xewal leneen lu bees tàq waaw waaye nag jàmm rek lay jur <laughs> waaye am na yoo xam ne bu continuer colline yi xewoon ci élection yi ak ay yeneen ak yeneen du ko jël am na ay réew yoo xam ne amul ay élection présidentielle te ñu ngi dund ni ñu war a dundee bi ci des mooy lan mooy bu kenn xeeb la la yàlla may ak fa nga toll sa daraja citoyen yi yàlla yemalewul waaw waaye yow yàlla ngi la yemale ci un million nga ne tey dix laay am par la force mu yemale la ci dix nga milliard am contribuer ci sa développement réew fa la sa nga ko loolu moom ci jeunesse beeg yëpp ak solidarité bi ma ñëw nag ci aw Bakar Feggu so Bakar Feggu mooy lan mooy diwaanu Bamba fépp